ab délégation bu am solo bi nga xam ne kii di ministre de l'économie du plan et de la coopération moom moo ko jiite di représenté premier ministre la ñii di waa conseil national du patronat tijjee seen édition bu bees bi ñeel waxtaanu jëm ci entreprise yi mu doon ab audience bu am dayo bi nga xam ne kii di président CNP sukkandiku na ci ngir def ay sakkuteefam préservons les acquis majeurs du dispositif réglementaire partenariat public privé fa nga xam ni fa ñu sukkandiku loolee kat la ñu war a gën a téye waaye tamit gën a duufal pouvoir autorité régulation bi nga xam ne moo ñeel commande publique ak la nga xam ne mooy euh, saytu gi waaye tamit fexe bala nga xam ne kat mooy tukkee ci décision yooyee. élargissons le contenu local. naka noonu muy sàkku ci entreprise yi itam ñu doxal yoon ngir sàmmoonte ak charte yi. d'abord par. li nga xam ne tamit moo delluwaat ci ay respect critères yi nga xam ne moo tax rek mu mën a am waaye tamit tolloole gi ci li nga xam ne mooy ay traitement waaye tamit wàllum leeral ci ay procédure tey tamit évaluation bi nga xam ne mooy lu baax lool ci wàllum koppar ci suñuy entreprise ci li ñeel nguur gi nag muy joxe garantie ci li jëm ci karange koom-koomu entreprise yi la. pare na risque ay projet yoo xam ne dana gën a yombal si wàllum financement te damay profiter ci fii ma nekk ni ci lancer li nga xam ne ak woote la ci secteur privé waaye tamit ñu mën a gis ne risque yooyu daal. dana gën a tax ku ci nekk gën cee profité waaye itam fexe ba la ci ruusee sunu koom mën a am njariñ. maa ngi leen di xibaar ne itam daa daañuy taxawal benn fonds boo xam ne di ko tax a jóg muy jàppale industrie yi liñ ci jublu mu di gën a dooleel koom gi waaye itam jàppale bu baax a baax entreprise yu Sénégal ngir ñu mën a créer ay emploi yu bëree bëri. ci jamono ji nga xam ne crise yi bëri nañu ñeel wérgu yaram bi politique ci koom-koom bi ba tax ay réew yu bëri bëgg moom seen bopp ci wàllum dundi na nguuru Sénégal di xarandi tënk yi nga xam ne dana tukkee ci assises yi le ngir mu mën a wéyal ay objectifam